muy peetu orange ak peetu mango ndax mango baa ngi ñëw. kenn naatablewul dayoom ci lépp lu soxal wàllum njaay marché syndicat lu mu ndaw ndaw fanweeri camion yi nga xamante ni nag mën nañ koo àpp ci fanweeri ton ñoo fa ñëw di wàccee ay fuuy fii ñu fi nekk dañuy liggéey di daan seen doole di am yaa ngi dégg bagage yi di jaar fu nekk di di ñëw mu fare nag ca banlieue bu Ndakaaru bi le nag li muy jot ci nit ci at bi kenn mënu koo xayma naam nag leneen lañ fay nemmeeku moo di bariwaayu mbalit mi ngir mu bañ leen sonal mairie bi ak jaaykat yi daal di boole seen doole rek ngir yeesal xar kanamu marché bi. bu njëkk bi ñu fiy jaay boobu bu yàlla ci tawee ndox mi day dugg ba ci biir salte beeg lépp nekk poto poto mais léegi nag depuis Ablaye Wade ñëwee en 2000 mu def fi basin bi ba nëgëni si. bu tawee fii dans cinq minutes ndox bi yëpp si yaxtaan oto bi dafay ñëw yaa ngi dégg léegi su ñëwee oto bi su ñëwee daf koy jël dem tuuri ko léegi ñun lu ñu defar fii dañuy fay booy ay deux cent trois cent ñu dem tuuri ko waaw yenn saa ñoo ko nettoyé suñu bopp yenn saa yi gaari fi jaar quoi nettoyé mais fii ñu ko nettoyé suñu bopp moo leneen du ñu jëmmal ngir euh, cet daal di fay am moo di recyclage maanaam lu bon li li ci xaw a tane ñu daal di koy jël loole nag dem na nag ba ñu bari euh, di ci daal di am kom comme doom yi nii doomi orange bu yàqu bi am na borom oto xam dañuy ñëw fii di ko jël di fulli doom bi doom yi di ko sotti ci ay saaku di ko yóbbu di ko yóbbu seen jardin di ko di ko def ay ay ay orange. ci fàttali bile marché nag ab dex moo fi nekkoon. léegi nag mu dem ba soppeeku doon marché bu am dayoo bi génnee koom gu dul jeex loole nag daal di waral mairie bi daal di door ay liggéeyu yeesal ngir rek marché bi woy di gën a am dayoo ba ku amati marchandise sa xel daal di dem ci marché syndicat